bira yi bira yi kenn ku nekk sa xel rek nga doyloo def nga ne yaa ëpp ñëpp xel li nga tànn ba di ko def def nga ne rek yaa gën a muus ñu ci def ñëpp doomu aadama yi léegi ñi nga xam ne topp nañ ko seen bànneex noonu lañ bëgg po tey ji buñ ne programme am na sorano théâtre wala nangam nit ki àtt na génne ñaari junni passé ko pour dugg bu duggee bu ñu suñu wayee li nekk ci poosam mu yëkk ko jox ko taali bi bi yelwaan day bu koy sarax ñaari dërëm la koy sarax wala ñett ku muy nag boppam boppam dong lay nag boppam la lor itam xaalis boobu mu liggéeyee moo xam lew na wala lewul mu def ko ci poos daañu ko laaj ëllëg na nga ko amee ak ci loo ko ñàkkee bu ëllëgee dana layoo xaalis boobu ci boppam dana layoo moom soog a layoo suñu borom tabaraka wa taala nga dem ci bépp bunt boo xam ne buntu pola dañuy fo biir da ngay buuxante wala ngay ran buñ nee match bu mag match capital am na ñoo xam ne ñu bari bu ñu añ sandwich la ñuy jënd dañuy ran ci naaj li dugg mu ne de buñ ne jàkk bi moom duñ ko romb ba seen xel dem sax dugg ci daf mel ne ay xaj yuy màtte nekk ci biir waaw ñooñu ah buñ leen mere kenn waru leen a mere dañ leen war a yërëm yàllaa leen wërsëgalee wul dara ci lu baax nit nag boo ko yéenee lu ko yàlla yéene wul it da ngay sonal sa waaye du sotti ci sa xarit la bëggoon nga alalam ji mu di ko ñàkk ci lu baax ci yoonu yàlla waaye lee ko neex loo ci mën dara muñ nag santaan nañ ko waaye am na fu muñ baaxe ak itam